salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi li ma mënoon def naa ko wax naa ak Aliou ba sensé na classement bi ñi ma bëggoon ñu départ ñëpp départ naa ay ñoom Bamba Dieng ak yooyu après mu dugal leen rek mais lii moom baax na joueurs yi ñoo war a football ngeen fas jom mun leen nga nekk yeneen équipe yi di football Sénégal kat leen dayam gars salaamaaleykum gars yi yi li ma mënoon def naa ko wax naa ak Aliou Cissé ba sensé na classement bi ñi ma bëggoon ñu départ ñëpp départ naa ay ñoom Bamba mu leen rek mais lii moom baax na joueurs yi ñoo war a football ngeen fas leen nga nekk yeneen équipe yi di football Sénégal salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi li ma mënoon def naa ko wax naa ak Aliou Cissé ba sensé na classement bi ñi ma bëggoon ñu départ ñëpp départ naa ay ñoom Bamba Jeew ak yooyu après mu dugal leen rek mais lii moom baax na joueurs yi ñoo war a football ngeen fas jom mun leen bu ngeen nekkee yeneen équipe yi di football Sénégal